asalaamaaleykum àdduna bi yëpp Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla yi kese ba bi man xiyaamal ak kabar maa ngi nuyu àdduna bi yëpp du nuyu ñëpp di ñaanal àdduna bi yàlla ma fi jàmm yi sax tey nag bu ngeen gisee tey tey dafa am loo xam si moo yéem àdduna bi man Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk damaa dem ba Gàmbi jël fa star bi gën a rëy ci àdduna bi ñu koy wax caat ënd xaawus tey mi ngi nii daf dañu cëpp Sénégal rek ci aéroport bi falaa ko jëlee teerte ko boyum bi moo ko wàcce da ko wàcce rek ma indi ko fii ci Diouf Fall 2TV tey moom lan dalal nag di ko wax mu nuyu ba pare ñu doo ko wax lan la ay ci yow la ñuy nuyu ku baax Euh, maa ngi big maa ngi big up euh, sénégalais yi. Mhm. maa ngi big suma suma mbokk gambien yi. Mhm. maa ngi nuyu tous les sénégalais di bëggee ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi dee bëggee Thiat. Mhm. xawaas. maa ñëw fii si émission Diop Fall 2. maa ngi gis su ma neexee Gambie na maa ngi ko doon use. yes maa ngi lee five bu baax. yes yes maa ngi wax suma boy suma tutanka yu nekk foofu yëpp. yes na leen da leen kon bu ma mm-hmm. ñëwee Sénégal suma xel mi nekk ci yow moo tax ma ñëw fii ñu daja aéroport ma ñëw fii maa ngi la dee bëggee bu baax a baax ndeysaan ngeen ko nee na mi ngi leen di bëggee bu baax a baax nee na mi ngi bëggee ñëpp ah, xalem yooyu nga xam ne ñooy ñooy tuut tànk yi nee na mi ngi leen di xaawus yéen yéen waa senegal tey nag xamul lu ñu tax a jóg tey ku ni Billy ni Gambi ku ni Marichou tamit ni Gambi waaye tey dégg naa ñu naan bili Marichou ëmbal na ko ëmbalagut jot naa li génne maanaam mbaaxa njaay ga maanaam su mudu jaañ ga jot naa ko waaye yëpp ca sooda jaañ ga ñu lay laaj ba xam loolu am na a amul ndax sénégalais yi ñu ngi ngawti ngawti gauche ak droite te sénégalais yi amagul lu leen leer bi biri waxagul lu leer marisu waxagul lu leer ba léegi ñu ngi ne tekk seen vie privée la li léegi wuru sili ak mbokk sénégalais yi lu ñuy wax nañ ko xam nañ diglu cat and xaawus lum na ci wax rek ñu xam ko ñun waaw man ngi lay maa lay centre di la gërëm. Mm-hmm. soo soo soo gisee ma ñëw fii. Mm-hmm. ku xam Thiat. Mm-hmm. xam Billy. Billy bu ñëwee Gambia. su su ma su ma su ma man la dee dal. Mm. foofu lañ dee nekk tourné lu ñuy tourné ba pare kooku kooku mun naa waxaat ci moom lu bari. ndeysaan man dama ko dee yus dama ko dee bëggee. yes waaw Billy nekkulu Billy sénégalais kese. Mm-hmm. ñëpp la sénégalais ak gambien ñoo yem. Mm. mais ñun ñun gambien ñun lu ñu dee dundee foofu. Mm. ñun lu suñu yoon nekkaloo suñu yoon nekkaloo foofu. ndeysaan dégg ngeen ko lu su yoon nekkul su yoon nekkul ci léegi dañ lay laaj ñun diggante Marichou ak Billy. leeralal ma point boobu point boobu laa bëgg nga tiiraal. waaw si si si loolu laa lay ñëw bili jàppul Marichou nummatu nummatu ko. wala déet non bul wax loolu wax loolu. man hmm. xam naa Billy. Hmm. Billy ko Billy du defal loolu. Ah, moom am naa bi kooku am naa jabar. Ah. am na jabar mu mu ngi mu ngi Suisse. waaw dégg naa yéen a nekk yéen ñaar yéen a moom jabaru na takkulu jabaru sénégalais. Hmm. kon ku ku xoolul jigéenu sénégalais lan lay ëmbalee jigéenu sénégalais moom tubaab la dee takka. ndeysaan yaa ngi dégg kooku baax la. ah ngeew la takka ngeew. ngeew la takka. moom laalut kooku. amaanaa ñu bokkaat di tournée yi patati patata sénégalais yi ñu gis photo ñi def nii ñi ne mm. et eh, moo ëmbale kii moo ëmbale kii man a ku teg a kaamil ma waat ne bi li laalulu ko ëpp naa def léegi nag sénégalais yi moom wax na lu la mel ni midi nee na ku teg mu waat nii bi li léegi xam nga lan lañ bëgg ñun sénégalais li lay wuru suli ak mbokk nañuy tëj suñ làmmañ yi lu sun yénn ñun ñun ku xool ku ci xool saw askan ku baax dañ ci gis lu ni gàññ lu mel ni ferñeenti dëkk te doo ko tudd nit ki da ngay am sutura bili waxul mari si waxul xaritu bili bii nga xam ni mooy cat and house waxul léegi ñun kenn ku ne gauche droite surtout site internet sénégalais yi gauche droite bi lay ëmbal nangam sangam lan moo tax yéen yéen ñun ñun artistes yi lu tax bu nee feeb rek feeb rek bu xool ñun internet bi togg na pourquoi loolu soo gisee loolu. Mhm. am na ñu xamante ni gëmuluñu seen boppam. dañuy gis image su nit rek. ñu mhm. daw am lu ñu dugal bëgg ay ay ay ay ndukus. ndukus mooy bu dee sénégalais day dee wax ay ay vie. mais ñun bu nekkee ñu gambien dañ dee wax ay tukus. tukus ay ndukus non ndukus. da nga dee war a ñëw Gambie ma jàngal la. waaw ah. kon baax na. dañ la lay every time ñu ngi lay dee bégee. boo ma <laughs> temps fii mooy temps fii nga mooy lan. Ah. mooy nga jàpp jigéen ndax. non du bu dee Gambie du na waxal loolu de. Ah, kon baax na mais mais émission bi neex na. Mm-hmm. am na solo. Mm. maa ngi nuyu suma xarit bi Bili. waaw léegi bala ngaa nuyu Bili léegi Sénégal Ndiaye kon léegi lépp leer na barke yombal xëy am la kabar caat nee na Bili mangul bu bu buusaa buusagul. caat nee na bili numutu numut caat nee na bili laalu sii ci mbii ci réussir barke bi mal xaamal ak bar la nga xam ne kenn du ko dagg jërëjëf léegi xam lu bëgg nga tàggu Sénégalais yi tàggu Gambie yi tàgg àdduna bi ca xam ni kii day ñëwaat jërëjëf tàggool. waaw maa ngi maa ngi nuyu suma waxaay ma laaj la nen yow sa baay mooy sa baay. maa ngi nuyu suma suma suma mbokk yi. nga waxaale sénégalais yi lii nga solal. waaw lii suma lii lii rasa suma rasa yi. bi ma juddoo ba léegi mu nga ci man musuma watu. Ah, waaw bi ngay ñëw ci sa yaay rase nga indaale. Ah. kon ba léegi watuñ la yow. waaw man du ma watu ñun Gambien duñ dee watu. maa ngi nuyu suma mbokka Gambien yi di nuyu suma mbokka di nuyu fu ma jogoomee Serekunda Yundum maa ngi nuyu suma artiste suma mbokka artiste yëpp di wax Billy ne ko. <laughs> di wax Billy ne ko. mais man su ma dee wax ama ah, da ma dee xool. parce que yow yaa ma jëlee Gambie. yaa ngi understand. yes yeah du wax Billy Nekho bu tëddee na nelaw. Mm-hmm. waa Gambie yëpp pare nañ pour xeex. Mm-hmm. affaire bi moom yoonam mu nekk si. yaa ngi dégg di wax Marichou Nekho bu mu génna bu mu def dara. bu mu ah, wax bu mu amul lenn loo xamante ne mu ngi ko dee leeral. jërëjëf voilà. Ah, kon baax na. Thiat And House leeral na lépp. waaye man lim leeral arrangé na ma baax na ndax sénégalais yi nañu maandu nit day maandu lu ñu koy wax xaadim seen waxul maraîchers waxul nañu tëj lan moo tax artistes yi bu nee fiib lañu wax waaye xam lu bëgg jëmm ji toog nii nee na ba muy judd ca ndayam ak baayam ndegam baayam mooy baayam nee na ay rase lañu daal mi ngi xeeñ xun comme ay neefe jërëjëf nga mel ni muus mun pasel tàllalal loxo yi ma ñaanal la waa bay ni kum ci nu xuruj ko guppoo gupp fada gupp looy ñu wat la gupp lëfër lëfër wuy ma booy ku baax ajal say loxo yow wasalaam jërëjëf